حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
waxtu julli jot na la kon dañuy bàyyi rek sëñ Kadia bi kon nodd gi lañ nekk nga gën cee wéyalaat rek ñu waaw xam léegi nodd bi ni ñu ko waxee rek ay ngëneel yu am solo la nodd dem na ba nga xam ne eh, dafa dafa dafa dafa di lu am solo ci lislaam dem ba bokk ci identité lislaam dëkk boo dem sax eh, dégg nodd rek di nga xam ne fii kat ay ay jullit jàkkaa ngi fi ci lu dul benn sikk sàkk keneen ku dul jullit it bu déggee nodd yi dana xam ne lii fii ay jullit a fi ne wala ab jàkk soriwu fi kon loolu tamit lu am solo la dem nañ ba nga xam ne sax eh, jamono bi eh, bi gars yi di murtad rek di génn ci lislaam bu Seydina Abubakar daan yebal armée te daan wax ne laata ngeen di song sagam sikki sàkk bi bëri na ñii dugg nañ génnaat te wóoru leen te xeex ak eh, rey jullit xeex xare ak jullit moom danger la balaa ngeen di song kenn da ngeen di nodd bés boo leen noddee boo leen gisee ñu wuyu si leen ci nodd googu ngeen xam ne kon ay jullit lañ boo leen noddee nag ñu ignoré nodd bi lu toll ni nodd boobu ñu ignoré ko baat yooyu ni ñu ko waxee sàng ji baat yu am solo ñu ignoré ko rek xamal leen ne kon dañoo murtat waaw kon loolu ñu gis ne eh, muy lu lu kawe loo xam ne ci ci ci lislaam muy nodd Mhm.
te bilaal moom mooy ki ko njëkk def dëgg la te nañ mbir moom ku ko njëkk def ñeneen ñu koy def yëpp da waaw, cee da dañ ciy ci am yool yoon waaw ñëpp bilaal lañ ciy royaat Mhm.
waaw kon loolu tamit di lu di lu di lu am solo kon noonu la dundu Médine bi doon doon Mm.
demee ba Mm.
xare yi nag tàmbalee Mhm.
nga xam ne nodd gi daa mel ni lu jiitu xare badar tuuti la ci la Mm.
xew-xew bi amee dëgg la Mm.
waaw loolu de kon dañuy fàttaliwaat rek ni eh, maanaam dund Seydina Bilal eh, taxawaay bi nga xamante ni amoon na ko rek ci ci ci islaam xamante ni nodd moom daanaka ñëpp ngay jëriñ yow mi koy def di nga di nga jëriñu eh, maanaam ñi ngay woo it maanaam dina- dañuy jëriñu rek maanaam ku ñëw ku dégg nodd gi ak ku ku ku ko teewee rek maanaam si njëriñ doogu eh, da nga ci da nga ciy mën a dugg bu baax a baax a baax ngir eh, mëtale eh, waxtu juróom yi Eh, kon ah, ginnaaw buñ paree ci bu ñu jeexalee ci wa wa- wa- wa- wa- waxtu nodd yi dégg nga ginnaaw bu ñu jeexalee ci eh, niñ doon niñ niñ doon fàttali ci nodd bi nodd bi mm.
eh, dañuy jàll rek ci eh, dunduk Seydina Bilal ngir ne ko xam ni ku xam Médine moom eh, da ngay xam ni foofu état islamique eh, moo fa moo moo moo moo fa am ci jamono yonente bi la tàmbalee Mm.
eh, mobiliser force daan mobiliser force yu am doole Mm.
yoo xamante ni eh, da ngay mën a jëflanteeg képp ku nga xamante ne rek da lay bëgg a xoqatal eh, wala di la jéem a xañ eh, sa diine Mm.
Eh, loolu it eh, maanaam moo waraloon it eh, ba ñu nekkee Médine eh, ay xare yu bëree bëri yoo xamante ni julli ci doon nañ ko xare eh, mu doonoon ndigal goo xamante ni da daan bàyyee ko suñu borom Mm.
eh, ñëw ci yonte mu yeggee ko julli ci eh, ñu koy def Eh, xare yooyu nag xare bu ci gënoon ràññeeku mooy xare Badar Mm.
xare badar nga xamante ni foofu it dafa am jeexital bu baax a baax a baax ci dunduk Seydina Bilal Mm.
Euh, ngir solo gi mu am damay bàyyi rek euh, euh, sëñ Kajaal yi dugg si si Waaw.
xam naa lu mu ciy leeral it lu mët a leer lu luñ mët a luñ mët a bàyyiwaat xel la ngir ne xare badar léeg-léeg dañ koy nettalee noo xamante ni Waaw.
day yaatu lool waaye bii ne bii nag dañ koy nettalee noo xamante ni dunduk Seydina Bilal la ñuy la ñuy xool ci xare bi waaw ku bëgg teewlu xare bi moom def nañ ci podcast mun na ko dem teewlu foofu détails yi yëpp mu ngi mu ngi fa xare bi moom macha allah xare bi suñ boroom nag joxe ndigal yonent bi ne léegi fi mu toll nii nag xeex mun ngeen xeex ku leen tooñ mun ngeen fayu ku leen song mun ngeen xeex seen bopp défendre seen bopp ci la euh, ci la ci la ci la yonent bi nag tàmbale di di di waajalay armée di perturber caravane waa Quraysh ak yooyu ba xare Badar am xare bi muy am nag ni ñu ko waxee woon sànq ci njëlbeen gi mooy umayatu ibnu xalaf moom Mhm.
bëggutoon dem ndax dëgg la wax bi ko Saad ibnu Muaz waxoon ne yonent bi prédiroon na ne dinañ la rey loolu la doon sóoraale ba ragaloon na dem waaye ñëpp xam nañ ne Abu Jahlin amoon na campagne bu mu doon def di recruter ay nit di forcer ay nit pour ñu ñëw noonu la def nag noonu la def ba Umayya nag par orgueil ak bañ ñu ne daa ragal moom mu dem waaye lépp lu muy dem yëpp euh, xelam dalul ndax xam na ne li ko yonent bi wax de amaana loolu dina ko si dal est-ce que waaw léegi nag noonu la ñëwee Umayya ñëw ci armée bokk ci ci armée yéeféer yi bi mu ñëwee euh, xare bi bi muy am ba jullit ñi gañe nga xam ne bis boobu ahadun ahadu bilaal boobu sax lañ def euh, cri de guerre waaw bi ñu ñëwee ba xare bi di waaj jeex ba ñuy jàpp prisonniers yi ci la Abdourahman ibn Awf nga xam ne moom kenn la ku tedd ci saxaaba yi moom it ci la gis Umayya Umayya di làqatu ak doomam Euh, mu ne ko mu ne ko ndax doo ñëw jàpp ma def ma prisonnier nga bàyyi mbubbu koŋ yi nga yor Abdourahman ibn Awf ñëw jàpp Umayya def ko prisonnier bi muy dox ba si yàgg lansaar yi ni- seen Umayya ñu jàpp ko Bilaal tamit bi mu seenee Umayya ci la ne kii kan la Umayya noonu lislaam bi yow de boo muccee tey du ma mucc est-ce que Abdourahman ne ko déedéet kii sama sama sama prisonnier la mu ne kii kay doon du mucc noonu lislaam bii du mucc tey bu muccee rek mooy tey mooy du ma mucc ci la ci la ci la ci la lansaar tamit déggee xam ne kii mooy Umayya kii moo doon mettital jullit ñi rawatina Bilaal ñoom ñëpp ñoo ngi ñu songandoo Umayya ak Bilaal ci boppam ñu rey Umayya waaw Umayya mun nañu wax ne da da da da bokkoon ci mm, guerre bu ne da ngay am pris day am prisonnier de guerre am criminel de guerre waaye Umayya tolloon na darajay criminel de guerre moom dëgg dëgg waaw waaw kon moo tax euh, ñu mujj koo faat waaw kon noonu la Umayya mi nga xam ne moom moo ko doon mettital mettital yooyu te bis bisam nag bi bisu xare Badar bii nag la feeñ waaw nga xam ne Bilaal may may mayu ko dara Bilaal tamit jàmbaare lool ci xare gi euh, ak yeneen mboolem xare yi am Uhud ak mboolem xare yu mag yëpp Bilaal teewee na ko bi mu si Dëgg wutee la.
daal xamuñu ko moom Bilaal Dëgg moom la.
teewee na lépp événement yu mag yëpp teewee na ko ni ñu ko waxee sànq bu waxtu julli jotee mooy nodd dëgg la waaw kon noonu noonu noonu noonu la demee woon kon foofu la euh, ci xare Badar ci la Umayya ibn Xalaf waaw faatoo waaw waaw comme rey gi nga xamante ni rey nañ ko euh, Umayya ibn Xalaf Mhm.
nga xam ni maanaam dañuy dellu si waat rek ci ginnaaw euh, maanaam ba muy mettital ba muy met- mettital Bilaal Mhm.
euh, ba muy mettital Bilaal yéene moo nekkoon euh, mu dee baa mu génn ci li nga xamante ni mooy mooy mooy mooy diine islaam Euh, kon da ngay gis ni Umayya ibn Xalaf euh, yéene moo ko fekk si waat rek ci xare Badar boobu noonu Mhm.
euh, b- bilaar euh, fexe ba maanaam euh, wax ni maanaam boo muccee du ma mucc euh, maanaam tax ta- taxawaay boobu noonu mu taxawoon noonu ak yéene gi nga xamante ne amoon na ko engagement daa xamoon ne kii nii euh, maanaam euh, lii donc lii euh, maanaam rey ko rey ko mu dee ci xare bi donc moo ko moo ko moo ko moo moo- moo- moo- mooy tawféex gi Mhm.
xaw ma mooy tawféex gi laa koy mën a wax wala mooy mooy li war a mën a mooy li war a mën a am Mhm.
ndax ba muy ba muy mbu mbugal téy naa Bilaal maanaam ba mu koy mettital ci suufas màkkasa Mhm.
nga xamante ni ci naaj bu tàng beex yu demee noonu yëpp nga leen lu lu- lu doon yéene moom kii day dama koy mbugal ba mu faata ay xeer yu diis yi mu doon ko teg loolu yëpp pour mu pour mu faata la woon waaw Euh, ak dóor yeeg ak Humiliation bu doy waar humiliation yooyu yëpp pour mu pour sëy naa Bilaal maanaam génn ci diine islam la woon Mhm.
waaye da ngay gis ni eh, maanaam eh, dëgg moom daanaka mooy féete kaw saay su ne rek waaw eh, dëgg ci boppam moo moo moo moo feeñ ci xare Badar moo tax it sëy naa Bilaal biral na ko bu baax a baax kii bu muccee du ma mucc Mhm.
euh, fexe si def si kem kàttanam ak ak ansaar yi ko jàppale waaw euh, ak sëy ak sëy naa sëy ak ki nga ak ki nga xamante ni mooy Abdourahman Abdourahman moom ibn- mujj na see ibn- ibn gaañ Xawf.
mujj nañ ko see gaañ ndax nga xamante ni moo doon jéem a sax maanaam waaw, ndax euh, li Umayya mu ko- xaritam la li woon mu- li mu- li mu xarutoo Umayya ak dig gi mu ko diggoon ni Waaw.
euh, maanaam sànnil sa mbubu koŋ yi Waaw, xanaa dañuy- bëggoon xanaa bëggoon ndawal ak ak meew waaw waaw yor naa ay nag yor naa yooyu yëpp mu ko doon waaw yooyu yëpp pour bëggoon a mucc rek Mhm.
waaye dëgg moom saa su ne mooy Waaw.
mujj rek Mhm.
waaw dëgg moom bu jotee moom daanaka euh, dañuy xam ni euh, euh, jot na waaw rawatina yonent bi prédiroon ko.
waaw waaw yonent bi tamit waxam tamit du dellu ginnaaw moom waaw waxam moom daanaka alaakuli aal moom alaakuli aal fu ñu ci mën a toll rek da ngay day day dañuy dem ba mu feeñ rek. xam ni maanaam ay waxam moom eh, lu leer naññ la eh, du waxantu. Eh, moo tax it eh, di Seydina Bilal def ànd ko ak lansaar yi. dem ñu ko def eh, ay yool yi ay yool la. ak ay kaw ay ay ay dara yu ay daraja yu kawe. donc Mhm.
moo moo ñu ciy fekk. kon eh, xam naa eh, dañuy bàyyiwaat rek waxtaan bi. mu gën a wëy. ngir ne amaat na lu ci demee ni ki fatxu màq Fatou Mak waaw, mu fatxu màq it ba muy taxaw ci kaw ci ci kaaba gi xam naa sax balaa may dugg dama lay bàyyi nga leeral bu baax a baax ñu soog ci mën a wax Màkk daanaka mun nañu wax ne euh, lu événement bu am solo la bu bu bu yéeme boo xam ne euh, xew-xew bi noonu la demee. ni ñu ko doon waxee sànq bi yonent bi duggee màkk euh, mu doon dugg boo xam ne waa màkk amatuñu pexe xam nañ ne fi mu toll nii lislaam am na ndam lu rëy moomaat na màkk ba ñëpp toog.
Mhm.
ñoom Abu Sufyaan ñoom Safwaan ñoom ñoom euh, Suhayl Mhm.
ñëpp toog ñoom ñëpp koy mhm.
ci ronu kaaba gi ndax boobu moom ku bëgg a mucc foofu ngay toog Mhm.
yonte bi wax Bilaal ne na yéeg ci kaw kaaba gi nodd non est-ce que am ne loolu tamit di symbolique bu am am solo Mhm.
ci la Bilaal yéeg ba ci kaw kaaba gi nodd ñëpp teewlu Mhm.
mu nodd ba nodd bi daanu yonent bi daal di julli Mhm.
waaw loolu nag metti woon yenn ci waa Màkki yi ba euh, su ma juumul yaakaar naa Attaab ibnu Usayd la moo doon wax ne lii de bu fekkee woon bu fi fekkoon sama bàyyi de moom xam naa dina lii du ko mën a muñ dëgg la waaw far yonent bi ñëw wax ko lu mu ko lu mu lu mu lu mu- lu mu doon wax si suuf Euh, fa si la tuub si la duggee ci lislaam mujj dugg ci lislaam dugg gu sincère waaw kon bis boobu Bilaal noonu noonu noonu la doxee woon ak ak ak euh, ak ni muy yore woon euh, raaya bi topp ci ginnaaw Abu Ru- Ruwayha Mhm.
waaw Abu noonu Hurayra.
waaw noonu noonu noonu la demee woon nag Bilaal taxawee taxawaay bu am solo nga xam ne Mhm.
fa dëkk bi nga xam ne ab jaam nga woon amaana daanoo sax bokk ndab booy lekk Mhm.
ak yenn kilifa yi doo Mhm.
sax sañ a toog seen jotaay nga dem ba ba fu gën a tedd ci màkk nga yéeg ci kaw kaaba gi nga tiim ñëpp nodd kon loolu lislaam rek a ko mën Dëgg la.
loolu moom lislaam képp Mhm.
képp moo ko mën dëgg waaw dëgg ku wax ne lislaam tamit diine raciste la Mhm.
da nga xamut wala diine boo xam ne dafay privilégié yenn classe yi suufeel ñenn ñi euh, événement bi war na tax nga xam ne loolu demeewut noonu waaw Dëgg kon la.
noonu ak ginnaaw Mhm.
fatu màkk nag Mhm.
noonu la demee ba bi fi Mhm.
yonent bi di jógee Mhm.
ba bilaal nag di ànd ak xalifa yi Mhm, Waaw.
waaw waaw ci taxaw gi nga xamante ni Seydina Bilal taxaw na ko ci kaw kaaba gi eh, ngir eh, maanaam eh, saxal eh, baatu seede yi ak ngir saxal kalimaatu laa ilaha illallah muhammadu rasulillah eh, loolu it day loo xamante ni comme ni nga ko waxee rek eh, lu symbolique la ba léegi ci diine islam kon dañuy bàyyiwaat xel rek ni nodd moom eh, fu jullit mën a ne rek daanaka eh, saay bu waxtu julli jotee rek eh, day jaadu eh, ñu nodd daal di julli Mhm.
Eh, wa- waxtu bi mu koy def it waxtu waxtu waxtu waxtu julli moo jotoon rek Mhm.
Eh, mu jóg def li nga xamante ni mooy ndigal li taxaw ci kaw kaaba gi daal di noddu mbooloo mi yëpp dégg ko nodd gi boo gisee ñuy taxaw fi fu kawe it ngir bëgg ñëpp dégg rek ak fépp fu nit nekk rek ak lépp loo xamante ni rek eh, mbindeef la mu mën a maanaam seere eh, kàddu yooyu noonu di yëpp Eh, te laata nodd yi nodd bi it di di xew eh, dañuy dellu siwaat rek ci fatxu bi Mhm.
fatxu bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak mbooleem saxaaba yi Mhm.
ak mboolem ñi nga xamante ne dañoo àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir fatxu maanaam ba ñuy dugg si biir Màkka dugg si bi dafa nekkoon dugg si bu majestueux bu am doole. boo xamante ni amatul amul benn force bu leen mën a mën a mën a mën a neutraliser wala bu leen mën a attan Euh, nga xamante ni dugg si nañ dugg si boo xamante ni ñëpp ko ñëpp a lé- lépp a lépp a taaru.
Mhm.
lépp a taaru ba si xew-xew yi fa jotoon am sax ci ay jaas ak yéen ak yooyu yëpp.
Mhm.
terewul dañ koo def ni ñu ko war a defee ngir ne am na sagesse bu ci génn taal Mm, ci mënutoon ci ci ñàkk.
loolu noonu mënutoon a ñàkk la waaye da ngay gis ni eh, ba yonente bi defee dugg si boobu noonu Mm.
dafa àndoon ak yonent Seydina Bilaal Mhm.
u maanaam ñu eh, joxe ndigal ñu ubbi buntu kaaba gi Ah.
Eh, ba ñu ubbee buntu kaaba gi da ngay gis ni eh, ba muy dugg eh, dafa dugg jiital jiital ñi nga xamante ni ñooy ñooy ñooy ñooy Bilaal Mhm.
ak eh, Usaama Usaama ibn Usaama Zayd ibn Zayd.
ak ki nga xamante ni tamit euh, mooy Usaama ibn Talha Mhm.
te ñooñ ñëpp da ngay xool ni dañoo bokk ci ay xeetu nit ku ñuul Mhm.
Euh, jëmm yooyu maanaam euh, Mhm.
ay ay nit ñu ñuul ay nit ñu ñuul ñoo leen meññ Macha Allah.
Euh, nga xamante ni der gi nga xamante ni moo nekkoon euh, euh, deru nit ku ñuul Mhm.
foofu it dafa dafa dafa dafa dafa yëkkatiku waat bu baax a baax a baax yëkkatiku gi mu fa yëkkatiku it nekkul nii maanaam euh, ci dañ dañ leen a dañ euh, affaire affaire affaire affaire gënee la wala affaire maanaam euh, comme ni ko nit ñi di waxee daal affaire raciste yu demee noonu waaye euh, ponk affaire mbirum yonante bi maanaam Mhm.
lépp lu muy def rek xi- xiktam dafi da ci da ciy am Mhm.
jamono jëfa ba ñuy nekk jaam euh, Mhm.
ñoom dañoo nekkoon ci ñu gënoon a suufe ci Mhm.
xeet ga Mhm.
Euh, daan leen daan leen mettital daan leen torturer daan leen dugal ci yoo xamante ni ñu- lépp lu nga xamante ni dañ koy liggéey loolu doomu aadama rek Mm.
wala mala war koo def sax daanaka ñoom ñoo koy féetewoo Mhm.
Euh, yonente bi nag bu demee ba ubbi fi nga xamante ni moo gën a tedd ci kaw suuf Mhm.
euh, ànd kook ñu- ñu- ay ay ay ay nit ñu ñuul Mhm.
ñu dugg ci biir toj mboolem Wax xërëm ne ja fa nekkoon ci kanam kilifa màkk yi ñi nga ci xam ne ñoo kanam daan waaw yor waaw jaam ñi nga xamante ni ñoo ko doon yor waaw waaw.
xeeb nit ku ñuul Mm, di xeeb xeeb nit ku perse ñuul.
bi xeeb waaw Mhm. waaye dugg si googu mu dugg seeg ñoom ci biir kaaba gi ñoo raxas mboolem xërëm ja fa nekk Mhm.
dindi ko fa Mhm.
Euh, loolu dafa nekk tamit maanaam képp ku nga xamante ni day nit ku ñuul loolu dañ laa da da- day da ngay siggiwaat bu baax a baax da ngay xam ni diine gi am nga ci cër am nga ci wàll Mhm.
te boolem daraja yi nga xamante ni nit da ko ciy am boo ci boo ci boo passé foo Mhm.
boo góorgóorloo taw féexu sunu borom mun na la ci ñod di ba nga yegg si Mhm.
Euh, ni Seyna Bilal nuñ ko waxee woon rek Mhm.
ci ci njaam la ci njaam la jóge Mhm.
daal di yegg ci sang Mhm.